nan la ñuy fexe ba yaakaar gi yaakaar wi askan wi am ci moom ak yaakaar gi président Ousmane ko am ci moom ak yaakaar gi sénégalais yi am ci moom rawatina ndaw ñi mu fexe ba réaliser ko mën nañ ni discours bi yëpp ci loolu lañ ko mën a tënk parce que non man li ma la mën a wax Ousmane Sonko Basiiru la gën a wóolu ci boppam moo tax mu tànn ko loolu ñun ñi ko jege ñëpp xam nañ ko waaw maanaam nit boo demee ba jël sa taaw tuddee ko ko kooku mbiru politique booleetu leen te Ousmane ku ku miin waxam yàgg nga dégg muy wax ne lii du mbiru nit mbiru projet la man su may joxe exemple damay jox exemple bi ma gën a jege muy muy islam. islam korog bi fi yonent bi jóge est-ce que dafa taxaw dafa continuer di dox projet bi Ousmane Sonko nekk fi ak mu bañ fee nekk day continuer di dox jomaay bu ko jëlee di doxal même bu ko keneen yoroon yow mi buñ la ko dénkoon ak ñi enca ñi lay encadré mbir mi day continuer di dox kon dañuy rassurer sénégalais yi rek ki ne tey képp ku fi ku dégg discours bi Bassirou tenir di nga xam ni kii réew mi rek moo tax muy wax loolu moom man moo tax ma ñëw déglul ko sam non Basiirou bu paree pour doxal réew mi yóbbu ko fi ko sénégalais yëpp di xaar mooy li ñëpp bokk ñëpp jot ci li ñëpp bokk ñëpp jot loolu mooy slogan bi te tey ku déglu discours Basiirou xam ne foofu la nekk di wax ni nag élection kenn du ko gañe te voté guñu nañu wàcc sur le terrain dugg ci ruq ruqaan yi dem convaincre sénégalais yi ñu votel Bassirou Diakhar Diomar fay lan moo nekkoon attitude mais dañoo nekk en l'aise fii ku fi ñëw da ngay nekk en l'aise parce que ñoom ñëpp sénégalais leen boole xam nañ ni tey ay intérêt parti boole tuñu intérêt idéologie boole tuñu tey lenn rek moo ñu boole mooy le Sénégal d'abord boo gisee ku mel ni Mimi Touré ak jaar-jaaram bi mu am ak président de la République tey mu mën ko wan ginnaaw. ñëw di superviser coalition bi ça signifie que ni Sénégal rek moo nekk ci kanam le Sénégal d'abord loolu lañ ci mën a jàpp donc nga xam ni moom moo nekk allah léegi Bassirou Diomaye voilà donc ñu ngi en face ak li nga xam ne moom mooy euh, alors si buntu euh, siège carte QG bu Bassirou Diomaye Faye euh, fi mu ne nii moom Bassirou Diomaye Faye fay ngi mu ngi si biir génnagul donc doon gisanteeg ñi nga xam ni ñoom ñoo di les leaders alliés ak ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk leader yu coalition Bassirou Diomaye fay déjà ngeen gis Aminata Touré tout à l'heure daal di génn si li nga xam ni mooy si biir. Euh, alors QG bi donc Aïda Mbodj tamit ngeen daal di koy seen mu génn euh, Imam Dramé ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di ay leaders yu bare jamono ji nga xam ni ñoom tamit ñu ngi war a amal li nga xam ne mooy seen conférence de presse. alors comme daanaka dañuy rek euh, jo euh, voilà ñii délégation bu Cheikh Omar Diagne la bu euh, ànd si dëgg rassemblement pour la vérité ñoom ñoo ñoom. kontaan nañ trop ah, ah, kilifa gaa gi ñëw. bu waxee ñëpp dañ kontaan allah. <laughs> alors mu nekk professeur Cheikh Omar Diagne nekkoon candidat si élection yi mais finalement dafa rejoindre li nga xam ne mooy la coalition Diomaye président. Euh, moom Cheikh Oumar Diagne donc nekk rassemblement pour la alors dama leen di bàyyi ak Matar euh, Matar Cissé donc ba maa ngi lay nuyu jaajëf. nga xam ne mooy si hôtel Euselaye Matar maa ngi lay bàyyi fii su ko defee ñun ñu dem fële. Euh, donc ñu nekk fi nga xam ne moom mooy au niveau du du QG. Euh, QG euh, bi nga xam ne moom mooy euh, coalition. Diomaye école bi coalition Diomaye Faye président 2024. d'accord d'accord. benn angle bu baax rek donc jëy jëy dañuy jéem a dem taxaw si oto bi di di nuyu waat jëlal ma imam Quraysh bu naa ah. ñëw ah Quraysh ba yow jël jël imam Quraysh ah ba jël ah. kon du xëccoog moom cër bi nga xamante ni moom la ko yàlla jox mais du tere ñu ngi génn léegi war a jëm Casamance te ñoom ñooy ànd après 15 heures incha incha allah. mais parti démocratique sénégalais recours am cour suprême ñu déclaré ko irrecevable lan moo nekk seen jàngat ci wàllu woowu. waaw loolu sax dafa dafa rafetul sax nit di ko wax parce que xam nga tey conseil constitutionnel bu xasee ba tëral. mais bokkul ci teggeen nga ko yóbbu ay cour suprême donte seen droit la waaye dafa am loo xamante ni droit day légal ki nga xamante ni da ko seqak moom muy yow nga xamante ni écarté nañ la mais li li gën a am solo moo doon ñu xam ne écarté nañ leen ñu def ni yeneen leader yi ñu écarté ñu ñëw rangé wu ci gannaaw ñi nga xamante ni ñooy dix huit wala dix neuf mais defoo loolu di ci ñaaw du Mamadou Diop Decroix ak li mu liggéey ci Sénégal ma amoon njortu lu rafet ci moom. mais tey maa ngi am doute ci li ko séparé ak suñu frère ak suñu grand muy euh, Landing Savané dey wane ni am na jikko joo xamante ni jikko wa na ko ndax am na loo xamante ni même bu naree am sa république ngay xool li ko nar a yëngal ak li ko nar a daaneel nga def tout pour loolu bañ am foofu lañ doon séntu Diop Decroix mhm. mais à à l'âge l'âge bi mu amee demba ay soixante-dix ans tey ñoom na la leer ni mille neuf cent ba mille neuf ba deux mille époque boobu passé na mhm. léegi fi ñu jëm mooy ndaw ñi ñoo yor mbir te ñoom la ñuy gunge incha allah. Eh, Khoureychi Khoureychi bëggoon naa benn quelques leeral un par rapport ak la bi ñuy wax ci def déplacement Ousmane Sonko Casamance sax mën nañ ci ñëwal ak ay quelques détails. waaw programmation bi je pense que dinañ ko gën a détaillé dans dans quelques heures dinañ ko gën a détaillé parce que bu ñu demee fële si événement bi incha allah am na yoo xamante ne dinañ ko gën a détaillé mais c'est sûr et certain que nañ ñu xaar dinañ fa ñëw jëmmal leen dooleel leen. ndax loolu mooy base bi à la fin loolu mooy base bi donc les détails on va les donner plus tard incha allah. mais tey dina déplacé wu dem Ziguinchor. pardon mais tey dina déplacé wu dem Ziguinchor. di ngeen dañuy bàyyi ba ci kanam bu defee borom xel yi utiliser ko incha allah incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Ndiaye ak nga xam ne euh, ñu jéem a. Euh, fil bi rek fil bi ah, euh, donc dégg ngeen ki nga xam ne moom mooy kaddu yi euh, imam euh, Khalifa Ababacar xam ne moom mooy également kaddu yi ki nga xam ne moom mooy kaddu yi Khoureychi Thiam kon dañuy xaar ni ki nga xam ne mooy Diomaye Faye Fallou mu ñëw ñu wax ak moom par rapport ak li nga xam ne